réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu jaajëfal leen baax si ànd bi ngeen ànd ak ñun wéy leen di abonné te ngeen di waaye bu leen fàtte di aimé vidéo yi mbokk internet yi ñu wax si parti bi nga xamante ni ñoo di waa Pastef ginnaaw bi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy ministre intérieur daal dina koy tas waaye ñoom ñoo daal ba léegi mën nañ ñuy gën di dëgëral. li nga xamante ni mooy seen taxawaay boobee noonu ñu amoon ba léegi ñu ngi koy gën di dëgëral ndax kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko seen leader boobee daal nee nañu ba léegi daal kenn amul koo xamante ni daal moo ko mën a wut ba taxoon na ñoom ñooñu nag demoon nañ ni démb fi nga xamante mooy dëkk bu sell boobu noonu di Touba xam nañ demoon na ji yëpp mën nañ ne yi ku nekk yaa ngi jóg di fa dem di siyaara ji ba tax seen dem googu nag nekkoon na dem boo xamante ni bu am solo la waaye ginnaaw bi nga xamante ni seeti woon nañ njabootu Serigne Abdou Lahad gi Euh, ki nga xamante ni nag mooy doomam bu jigéen nag ñu koy wax soxna bu sa moom moomee nag naa jox na leen loo xamante ni daal lu duuna duuna duuna la jox na leen benn enveloppe boo xamante ni ab xaalis moo si nekk ak benn nag boo xamante ni daal dinañ ko baaxee ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko nee daal loolu muy añub ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko si bisub 18 euh, safar gi ginnaaw bi nga xamante ni Ousmane Sonko moomee nag bàyyi woon na grève de la faim bi nga xamante ni si la nekkoon ni ki démb.